bokk na ci sëriñ Fallou fii nag fekk nañ fi sëriñ Abo Mbacke mi nekk xalifaab cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ibn Xarim Rasoul gannaaw ba leen dalalee tatagal leen ci la ñu daal di yëkkati ay kàddu di kàddu yi bàyyeekoo ci sëriñ Amdi Modou Mbenda fal xalifaab maam cheikh Ibrahima Fall ginnaaw bi mu jotee ndigal. ci xalif général des mourides cheikh mouhamadul muntaxa mbàkki ngir gën a saytu nag ak taxawu dëkk bu tedd bii Touba lu jëm ci worma ak kaaraange ginnaaw bi leen sëñ aboo dégloo nag moom itam daal dina fësal mbégteem ak ak cantam jëmale ko nag ci liggéey bu am solo bi nga xam ne nii naka jekk nii la maam cheikh ibrahima fall taxaw woon ci wetu xaadim rasul jëf jooju ak jéego yooyu moom rek la sëriñ Muntaxa Mbàkke daal di yeesalaat ci xalif général des Baye Fall ci la sëriñ aboo daal di ñaanal délégation bi la nag ngir ñu mën a wéyal seen tukkeeb nemmeeku ñeel mboolem njabootuk sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci noonu itam délégation bi daal dina dem kër sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ibnu Xaadim Rasul biñ fi ñëwee nag fekk nañ fa ab xalifaam di sëriñ Cheikh Mbàkke ginnaaw bi leen dalalee tatagal leen yëkkati nañu ay kàddu nag ñoom ñii di ndawi xalif général des bay Fall àgge ko ki nga xam ne nii moo di sëriñ bi mu am ca ak cant ak mbégte moo xam ne nii yéene ji jenn dong la muy li sëriñ bi bëggoon ci dëkkam bi ci wakkar ko ak delloo ko worma ñu daal di ciy taxaw ànd ko ak mbooleem taalibe yi gannaaw loolu itam délégation bi dafa daal di wéyal ay jéegoom daal di dem ci kër sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou foofe itam kàddu yi yenn rekk la muy kàddu yuy bàyyeekoo ci sëriñ Amdi Modou Mbenda Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall gannaaw ba mu jotee ndigal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ngir nag ñu gën a saytu dëkk bu tedd bi di Touba ci wàllum kaaraange ak jox ko worma sëriñ Cheikh moom sëriñ saaliw dafa daal di rafet lu jéego yi am ca mbégte fas yéene nag feddliwaat ak jaayanteem ak digganteem ak sëriñ Touba Cheikhul Khadim ak mboolem njaboot gi aju ci moom ngir ñu gën a sóobu ci ndigal li bali sëriñ bi bëgg ci dëkk bi mu am ko na mu gënee noonu itam la délégation bi daal dem ci njabootuk sëriñ Moxtada Mbàkke ci njiitu sëriñ Mamor Mbàkke yebal leen ci sëriñ Fàllu ibnu sëriñ Moxtada moom itam mu dalal leen tatagal leen ginnaaw bi ñu yëkkatee kàddu yi bàyyi ko ci sëriñ Amdi Moodu Mbenda Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall te du lenn lu dut ndigalal cheikh Mouhamadul Muntaxa jëm ci aar ak wakkar dëkk bi ci anam yépp sëriñ Fallou Mbacke ibn cheikh Mouhamadul Muntada moom itam mbégteem fësal na ko ak cantam daal di soññ nag mbooleem jullit yi ak taalibe yi rawatina nag ñi aju ci kër sëñ Muxtada ngir ñu gën a feddliwaat laxasaay yi teg jéego yi fa ko mag ñi tegoon ngir mën a liggéeyal sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba ci ak sell noonu yi nag la délégation bi daal di wéyale ay jéegoom dem ci sëriñ Abdou Karim Mbàkke moom sëriñ fallu moom itam gannaaw ba leen dalalee ñu yëkkati kàddu yi bàyyee ko ci kilifa gi daldi ko koy àggee mbégteem akuk cantam fës na lool ay kàddoom nag du lenn lu dut a jaayante feddali ak laxasaayam ci Serigne Touba Cheikhul Khadim ci la daal di woo mboolem taaliba yi aju ci moom ngir ñu gën a sóobu ci ndigal li ba sëriñ bi am ko nu ko njort. ni ko ndawi xalif général des Baye fal defe ci mbooleem njabootug sëriñ Touba Cheikhul Khadim noonu lañ ko yaatal itam ci cheikhi sëriñ Touba yi ngir yaatal liggéey bi ak ndigal lile ci lañu daal di ñëwee nag ci daaru Mannaan ci njabootug boroom daaru gi fi nekk fekk fi Serigne Mbacke Daba Sarr gannaaw bi ñu ko jotalee kàddu yi di kàddooy ndigal moom itam mbégteem akuk cantam fësal na ko di soññ akawoo mboolem julliti ak taalibe yi nekk ci dëkk bi ñu daal di sóobu ci ndigal loolu ba lépp li sëriñ bi bëgg ci dëkk bi ñu nekk ca saa su nekk gannaaw loolu itam ci la ñu demee ndam ci njabootuk sëriñ ndam Abdourahman Lo ka nekk ca bopp ba di sëriñ Bassirou Lo ginnaaw bi ko jotalee kàddu yi bàyyeekoo ci xalif général des Baye Fall jóge nag ci xalif général des Mourides muy ndigal loo xam ne saytuwaat ak Wakkar Touba ci ma ak kaaraange moom itam mbégteem akuk cantam fësal na ko lool ginnaaw bi mu soññee mboolem jullit yi ak taalibe yi mu ngi gën a nag ñaax akawoo mboolem ñi aju ci kër sëriñ Ndaam Abdourahman loo ñu daal di gën a sóobu feddali ak laxasaay tënku ci ak taalibe ba sëriñ bi lim bëgg ci dëkk bu tedd bi di Touba mu amee ko nu kowe njort noonu itam lañ ko defee ci njabootuk Cheikh Issa Diène fekk nan fa sëriñ Abdou Latif jenn gannaaw bi kàddu yi bàyyeekoo ci ndaw yi xalif général de Baye Fall tàbbi ci ab noppam du lenn lu dut ndigal lu ko xalif général des mourides cheikh mouhamadul muntaxa jox ngir nag ñu saytuwaat dëkk bi ci mbooleem lu jëm ci wàllum kaaraange ak warma ngir mu méngoo ak li taxoon cheikhul xadim sanc ko moom itam yëkkati na ay kàddu yu soññee yu am solo jëmale ko ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne nii mag ñi amoon nan ko seen diggante ak Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul ci la daal di soññ nag mboolem jullit yi rawatina taalibe yi aju ci njenne ñu gën a soobu laxasaayu tabbiwaat ci ndigal li nga xam ne ni sëriñ bi du lenn lu dut taw feex gi mu bëggal boppam daal di ñu koy bëggal ngir ñu liggéeyal sëriñ bi ci dëkkam bi ci ak sell ba làq ngërëmam. kenn xamul fu mu